c'est dommage quoi moom il a été au pouvoir ak waad nekk premier ministre nekk président assemblée nationale xam ni réew mi di doxee xam ni conseil la am na xam ni constitution am na mu nekk ci opposition ni bu ma ñëwee si mandat bi naa ko wàññi cinq mhm. donc xam na ba mu koy wax ni mën na ko def sans ay gàllankoor wala da ko doon wax pour nax askan bi mhm. un parce que xamoon du ni ignoré woon na li loolu yëpp noonu. Mhm. nekkoon na ci pouvoir bi avant muy nekk opposition avant muy ñëwaat nekk président mu diggee ko ni bu ma ñëwee dama koy wàññi mu ni damay def référendum Sénégal yëpp xam nañ ni dof ñu tamit quoi constitution la pour mu mën a wàññi mandat bi de sept def ko cinq ans foog ñu dem référendum Sénégalais yi wax oui wala non ñu fal ko un an deux ans. ñuy xaar pour def référendum boobu wax wii wala non muy trainer gars yi seen xel di gën a ñaaw mu def ñett mu neex parce que ci album bi nag def naa ci boo nee nguur neexul da nga cee bokkul. Mhm. wala wala sa baay da cee bokkul. Mhm. ñaari at mu gën a neex ñett mu gën a neex ñeent mu gën a neex là il a décidé de faire sept ans parce que mhm. dafa neex. et là ce qui euh, dañ koo falan pour sept ans li mu wax nii. ku bëgg a wéeru ci loo lu la neex da nga ciy wéeru quoi kenn mënu ci dara. Mm-hmm. mais je pense que ni nag référendum bañ koy xalaat di ko wax ñun ñuy accepté ne mën nañu dem référendum c'était oui ou non pour benn mandat. Mm-hmm. yeneen yi mu ci bëgg a laxas yëpp na ko jaarale assemblée wala mu dem conseil constitutionnel je ne sais pas qui yooyu mu bëgg a mu changé ko mais jël xaalis di ko defaat ci ay élection pour ay référendum ça les sénégalais doivent dire mm-hmm. non. loolu loolu loolu dinañ ci dinañ ci parce que tamit élection la boo xam ne ay xaalis lañ ci def te loolu ñoruñu. Mhm. li ñu ñoroon mooy ñu def mandat wu cinq ans pour deux ans ku fi ñëwati fekk fi loolu. Mhm. comme loolu moom naax saay na na na ko teg na mhm. yeneen affaires yi ñu xool nu ñu ko gérer ay assemblée wala jeune ne sais pas ou la nan lañ koy gérer affaire am yooyu mu bëgg a dugal ci référendum bi mu bëgg a voté yi xaw ma 20 mars loolu soxlaawuñu ko. franchement pour man. grand bi wax na ko léegi. mën nañ ko dugal ci éducation bi wala feneen wala feneen wala mu doole ko ci sunu eh, fond bi fond culture urbaine bi voilà